asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine juróom-ñaari fan ci rabiu saani yi muy weeru rakki gàmmu di ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñaar fukki fan ñett ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett juróom-ñaari fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kontee ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo altine ju nekk sunna la ci ku ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma sag cofeel ak sopp képp ku la sopp allahuma inni asaluka xubbaka wa xubba man yuxibuk allahuma inni asaluka xubbaka wa xubba man yuxibuk xadiisu bis bi yonent bi sallallahu wa sallam nee na sunu borom dafa bind am bind njëkk muy bind mbindeef yi muy sunu borom dafa bind fa moom ca kaw xaras ne sama yërmande moo jiitu sama mer xadis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha kataba kitaaban qabla an yaxluqa al xalq inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqa al arsh rawahu Buxaari